doyen. Euh, euh, non man su ma déggee Kandji di wax damay jaaxle damay tiit. kan les autorités prennent des décisions sur des réactions xooluñu sur des conséquences te xooluñu causes yi on prend des décisions sur des conséquences et non sur des causes qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mmh. quelqu'un qui dit je quitte Ziguinchor. je fais une ma ñëw au moment bu ñëpp a ngi def caravane ce qui est gênant il faut qu'on l'accepte c'est le peuple qui le suit spontanément il me dit këyit nañ ko kenn arrêté wu ko mais lu nga ko wax moo raw arrestation ils lui ont pris ses téléphones ils lui ont pris ses bagages ils de force ñëw këram barricade ko mais ce qui a amené la réaction du peuple donc cause bi ñoom la ñoom ñoo def lu tax le peuple s'est révolté j'espère que dama dina dal mais ñoom ñoo def lu tax parce que ñoo jàpp koo xam ni deful waxul di ñëw di dox yoonam ni ngi génn di ko nuyu nga jàpp ko taxañ ko nanguy bagage am jéem ko humilier indi ko fii Dakar def loo xam donc on ne peut pas prendre des décisions je suis désolé major mais on ne peut pas prendre des décisions sur des conséquences ok bàyyi causes yi. alors que causes yi ñoom ñoo ko causé. conséquence quand il y a c'est la qui c'est c'est qui ont créé le. waaw a conséquence on prend des choses c'est la réactivité. non non non gis nga ça c'est des jeux de mots. non fii nga lu ñu wax dafa leer nañ dafa am lu am ñoom ñoo ko créé ñoo def lu tax lii am donc ñoom bu ñuy sanctionner seen bopp la ñu war a sanctionner et je peux pas comprendre quelqu'un boo xam amul décision de justice et c'est la première fois merci de la leçon peut-être su ma demee ma xoolaat ko. xoolaat ko que préfet ba aujourd'hui parce que si sabar yaa kanamam neexuma. tëj leen ko këram bu mu génn bu ko kenn seeti bu mu seeti waa këram duñ sax duggi marché pour toggaañ. c'est mais non mais attendez. même ay avocats dugg. non mais c'est du n'importe quoi. c'est pas je suis désolé. waroon nañ ko notifier nit ñi wax kon carrément. mais ils peuvent pas nous l'expliquer parce que sur le plan du xam nga li nga la vérité est que. xam nga la vérité non non kenn du wax dinañu tëj ñu. parce que man man ku ma teg résidence moom di ma wax. xam nga ñun ñii yëpp di waxtaan. waaw ah, ñun ñii yëpp di waxtaan ak boor boo mën a féetee dama ragal ni luy defar rek moo tax ñuy wax. quand même même bu wax ji dëgëree dañuy wax luy defar. vraiment kenn ku ci nekk da ngay yaakaar ni am nga dëgg nga dóor ci taabal ji. Mhm. mais kenn si ñun amul intention yàq. donc même bu wax ji dëgëree nañ ko jàppee noonu. Mhm. mais li am ba des mooy dafa neexal liir était très simple dafa am citoyen sénégalais bu nu singali qu'on dise la vérité sonnal ko jàpp ko indil ko privé que de tous ses droits sonnal ko liñ ko teg masuñu ko teg un homme politique Sénégal. mais partisan mi di jóg di yëngu di kii di résister ni du fi amee. amul leneen.